dal leen ak jàmm ñu dellusiwaat ak yéen ci xibaaru Pape Cheikh ma ne woon dafay ah, daal di mujj bàyyi liggéeyam fële ca TFM comme ni ñu leen ko diggee woon ci jamono ji Pape jàlloo Diallo mujj na dellusi ci TFM ginnaaw bi nga xamante ne Youssou mujj na ko daal di bàpp ba mu toog delluwaat ci liggéey gi nga xamante ne moom la fa yoroon moom animateur bu siiw bu Futurs Médias bi di Pape jàlloo dafa meroon lool ba tax mu wane woon ñàkk àndam ci yenn doxalin yi loolu le taxoon na sax ba muy wax ne dafay mujj daal di démissionné démissionné maanaam dafay tekk ay ndombal tànkama foofu ca groupe Futur Média ngir mën a dem seeti leneen waaye boobu boobule mëbët mujjul antu ndax jëwriñu kuréel googu Futur Média muy Youssou Ndour dafa mujj daal di bañ képp daal ne nag Pape Cheikh Diallo mënta jógee foofule ci TFM solo gu mu am ci liggéey bi ak taxawaayam ci groupe Futur Média moo tax ba Youssou Ndour bañ lool daal ne Pape Cheikh Diallo ci loolu lay tax mu fexe ba baab ko ba daal koy indiwaat ana nan la ko baabee nag ñenn ñi wax nañ ne ci ginnaaw waxtaan bu yaatu bu mu amal ak moom moo tax Pape Cheikh jàlloo daal di ñibbisi waate ca kër ga ànd ak loolu ginnaaw waxtaan bi ñu waxtaan ak jéggalu yi nga xamante ne mujj na am ci li nga xamante ne moom la Pape Cheikh Diallo doon jooytu am na ab enveloppe bu mag buñ ko jox boo xamante ne ay jege ñaale Pape Cheikh wax nañ ne enveloppe bu marron la maanaam kaki bu fees dell ak xaalis ci noonu ci la Pape Cheikh Diallo daal di dell si waate ci TFM ngir daal di wéyal liggéey bi nga xamante ne moom la fa doon liggéey ci fàttali li waraloon kon coow loolu nekk na lu yaatu waaye rek mën nañ ci jàpp ci li nga xamante ne mooy ca benn li ko sooxat muy benn émission yeewu leen bi nga xamante ne Pape Cheikh Diallo doon na ko foofu foofule ci TFM en direct waaye ci ndorteelu émission bi daanaka biñ ci tegee lu tollook euh, fukki simili ak juróom rek daanaka dañu daal di dagg boobule émission Ndiaga di doom ci kër gi moom ma daal di mujj dagg signalu émission boobu noonu ñu doon def ca jamono jooju ne moom lañ ci indi woon ndax boobulee émission yeewu leen Pape Cheikh Diallo mu ngi ci doon dalal woykat bu mag boobu di Pape Diouf mi nga xamante ne daanaka dafa am ci digganteem ak waa kër googu maanaam waa famille Ndourène dafa am lu xew seen diggante ay ñagas-ñagas yu fa am loolee tax na ba ñenn ñi ñi jàpp ne looloo tax moom Ndiaga mu dal di kuppee li nga xamante ne moom mooy signalu émission ba Pape Cheikh jàpp ne dagg googu ñu dagg liñ bi dee daggu tayeef la ba taxoon mu mer ba futu yi mujj daal di bàyyi boobilee liggéey ndax kat lii jàpp na ne du cër du respect du wegel bu ñu sukkandikoo ci waa groupe future Média nag dagg boobu ñu dagg signal bu ci jamono jooju nekkul lenn lu dul ab débordement rek bu ko xamante ne daf ca xewoon moo taxoon ñu daal di koy dagg waaye mel na ni boobu boobilee lay Pape Cheikh Diallo mënu ko nangu moom daal jàpp na ne mbir mi ab tayeef la jotee gu am ci diggante Pape Diouf ak famille Ndourène mbaa ñagas ñagas xew ci diggante gi warul tax moom di ko animé invité ci artiste bu mag bi ba tax ñu di ko daggal signal boobu loolu waraloon donc mu daal di am ab taxawaayu mer boo xamante ni taxoon na mu ne dafay tekki ay ndombal tànkam waaye mel na ni loolu mujjul antu ndax xam ngu ñu xam dayoom ci liggéeyub groupe Futur Média maanaam taxawaay bu mu am ak siiw gu mu siiw ci Sénégal ñëpp xam Pape Cheikh Diallo ci TFM tax na ba njiital kër gi di Youssou Ndour daldi di bañ kooku di Pape Cheikh daal ca télé ndaje ñu waxtaan waxtaan bu yaatu moom Youssou Ndour mujj na am ndam ci li nga xamante ne moom la bëggoon muy Pape Cheikh Diallo daal di des ci TFM waaye jubboon nañ daanaka ba Pape Cheikh Diallo mujj na dellusiwaat ci TFM di continuer liggéey ba mu fa amoon di ko def nu ëpp. ëpp wala nu gën nam ko daan defee muy mel ni rek li ñu doon wax tout est bien qui finit bien maanaam li tubaab di wax daal mbir mi fu mu toll nii sant yàlla dong la animateur bi dellu dellusiwaat na ci liggéeyam émission bi mi ngi continuer waaye képp koo xamante ni doon nga seetaan lii te namoon Pape Cheikh Diallo mën nga sant yàlla te xam ne à partir de maintenant di nga ko mën a amaat ci télé bi comme ni ko doon amee jërë ngeen jëf dinañ dellusiwaat ak yéen ci yeneen i xibaar